bawol nekk fële ca Tiwaawan Pël tiis ak naqar lañu yeewoo tey ginnaaw bi nga xamee ni seen ñaari ndaw ñoo des fële nga xamante ni mooy géeju Tiwaawan Pël génne nañu leen waaye ñoom ñaar ñépp dañoo faatu ginnaaw lap yu bari yi ñu nemmeeku ci géeji Sénégal yi rawatina géej gi nga xamante ni mooy géeju ñàgg ak Tivaouane Peulh loolu moom moo waral ki nga xamante ni mooy ministre de l'intérieur woote woon ab ndaje ngir xool yan matuwaay lañu ciy jël waaye ci biir loolu ki nga xamante ni mooy meeru Tivaouane Peulh ñàgg ñàkkurab ak ki nga xamante ni moom mooy général des sapeurs pompiers ñoom dëmb amaloon nañu benn tukki nemmeeku ci géej gi nga xamante ni mooy géeju ñàgg ak Tivaouane Peulh ngir xool yan matuwaay lañu ñu mën a jël ba saafara lii nga xamante ni mooy lëmbe réew. ñoo si waa Tivaouane Peulh yëpp te sigil ndigale kii doomam dem ak ñooñ ñëpp mais maa ngi ñaan si xale yi ñu def attention si géej bi. xale ak mag yi yëpp ñu def attention si géej bi lii de danger la géej moom amul papa amul baay et eh, amul yaay mais ñun nga xamante daal ñu ñooy yoro suñ doom yi si boppam suñu doom yi bu fekkente entraînement ngir yàlla boo gisee ñu ne terrain de football pour entraînement mais ñëw ba si géej bi encore nga ne entraînement demoo si entraînement nga dem dugg si géej bi moom da ngay waaroo xoolal tey moom ñun ñëpp ñu ngi jooy si affaire bi si ndigalee ñi nga xamante daal seen doom yi rey yem na si kii bi ñëpp si Sénégal yëpp bokk nañ si kii bi tool tool bi mais ñi nga xamante daal vraiment man de mënu ma wax sax xaaral ma jox sama paa bi. am na seen mbokk ñoo ci wàcc liggéey fii parce que li ku ne xam na ne géej moom xaru la ñi ñaa ñaax état itam ñu def seen seen matuwaay bu baax a baax jaar na def ay montage sax yoo xamante ne fii ba Kayar war na am ay montage yoo xamante ne képp ku fi ñëw. mooy ñu dàq leen parce que maslaa bi dafa ëpp maslaa bi dafa ëpp dañu war a teg affaire bi ci yoon ah ba dem si géej xaru maa fu daanaka xaru la ah sa sa dëkkandoo duñ liggéey duñu xëy kenn xamatul ci loo nekk ñàkk sa waajur dem ba sa waajur yaakaar na nga nga nga yàq sa bopp ci lu kenn xamul loolu baaxul nañ bay géej bi nañ bay géej bi amul njëriñ li saa nit lépp dañ koo tere état tere na besoon état tere na maire ñëw na tere na mais dëgër bopp moo leen ci yóbbu nañu bay nañu bay géej bi a ah, ñu ngi leen sigaal sigal ndigaali nag ñu leen di jaali ñi nga xam ne ñoo gaañu fi ah eh, masa seen waajur yi ah waajur yi taxawaat ci xale yi tey leen bu baax a baax a baax yar yar moo amatul ci xale yi parce que bu ñu dem doo yëg ah bu ñu dem doo yëg duñ la tàggu léegi nag gis nga résultat yaa ngi nii nag waaw ah, yal na yem fi yal na ko yàlla yemal fi yal na ko yàlla yemal fi waarikàlla jaa ngeen jëf mais état moom nañ ci def seen matuwaay seen kemtulaayu kattan na leen jaral lu ne parce que lii moom du lu ñaata ñaata doomi aadama ñoo ñoo jeex fii ci géej bi ren ah parce que démb njaay rek muy la grosse combien de personnes ah tey gis nga ko nañu bàyyi loolu ah ñu ngi leen sant itam yàlla borom rajo bi ma ngi lay bu baax di la gërëm parce que bàyyi ngeen seen liggéey def matuai def bu baax ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax yal na leen yàlla yeggal seen liggéey ay jërëjëf